jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy teewlu ci suñu Actu TV di leen jaajëfal bu baax a baax te ànd ak yéen ci xibaar yeeg li gën a fës tey ci euh, samedi yem ak fukki fan ak benn ci weeru février ci atum 2023 xibaar yi dañu koy door rek lu ñeel mbirum maître El Hadji Diouf ginnaaw bu ñu ko suspendre par ordre des avocats ñoo ko daal di nag suspendre nekkatul ab avocat mu maître El Hadji fi nekk mu neex rek nga daal di koy wax El Hadji maître ja daal dinañu koy teggi ba jëmmi jamono ci ay mbir yu ñuy càmbar ginnaaw si loolu nag moom maître El Hadj Diouf Cheikh Bara Ndiaye yëkkati woon na fi ay kàddu di ko xam le ne yow mérito toor sax ñu lay wax maître ndaxte viol bi nga xam ne moom nga fi violé woon ak ay mbir yoo xam ne jotoon na caa rek xew ba ñu jotoon ka rek tëj kaso ginnaaw si loolu nag mi ngi doon wéyal ab liggéeyam waaye xibaar bi mu ngi rek daal di wàcc niki ki démb que rek daal di nañu koy suspendre bu ñu fàttalikoo maître El Hadj Diouf moom moo yor dossier kii nga xam ne moom moo di ah. Adji Sarr nekkoon avocat am ci coow li nga xam ne moom moo dox diggante Adji Sarr ak Ousmane Sonko nekkoon avocat majeur bi nga xam ne rek moom moo doon défendre ki nga xam ne moom moo di Adji Sarr fi ne nag ab laaj dafay daal di samp foofu rek ndax Adji Sarr li nga xam ne moom moo di ah, dossier bi ah, beneen avocat bu dul maître El Hadj Diouf mën na kaa rek daal di utu ndax ci commencement ba fi ñu toll nii tey maître El Hadj Diouf moo yoroon lépp loo xam ne rek moom moo jëm ci bileem dossier di défendre ki nga xam ne moom moo di Adji ñu dem ca Léona Niassène ca commune bu Kaolack musiba Bamba Kumba moo faree ki daal di xew euh, mu di benn sëtu baay bu ñu fa rek daal di faat Abdourahmane Niass lay wuyoo moom nag dañoo jàpp ne ay chauffeuru malien ñoo ko daal di rek dóor ba mu faatu euh, ginnaaw si loolu nag coow li mi ngi am ci fajaruk tey ba quatre heures du matin di jot la ñu ko faat ca na euh, mu nekk sët ci maam Cheikh Khalifa Niass juróom ñetti chauffeur la ñu jàpp ne nag ñoo ko daal di dóor ba mu ñàkk ba kanam euh, néewam nag ña ngi ko yóbbu ca morgu bu El Hadji Ibrahima Niass ba nekk ca kaw la enquête jot nañ ko caa rekk daal di tijji ngir mën a rek daal di euh, xóotal lépp loo xam ne rek ñaaw nañu ko njort ci boobu lépp dossier ak juróom ñetti chauffeuru malien yi ñu jàpp ne rek ñoo ko faat ngir yoon daal di leen di euh, tegandi loxo ñu dem ca meeting bu mag ba nga xam ne Ousmane Sonko moom la doon amal ni kii démb ca Mbàkke pëcc xub réew bu ca mujjee rek daal di am ginnaaw bu préfet ba bañee woon ne meeting boobu du fa am ab autorisation boo xam ne rek xaatimu ko woon wala sax xaatim ba dafa dal di rek lank ba kandaar ne duñu ko fa amale ba noppi dal di joxe ay motifam lu ni mel nag tax na ba ñu ko càmbaree ba ca biir dogal ba bàyyeekoo ca kaw ñu mujjee leen dal di leen autorisé boobu lépp meeting ah, mu mujjee jur coow lu méttee métti yi loo xam ne jot naa rek dox ci diggante takk der yi ak militant yu Pastef yi nga xam ne daanaka sax ca commencement lañ ñu Ahmed Aidara Malick Gakou Déthié Fall ci Mbacké balaa ñuy dugg rek am na ñu jafe-jafe ndax takk da dañu leen a dal di eh, tee foofu taxawal leen fa lu yàgg-yàgg ngir bañ rek ñu dal di dem lu ni mel nag tax na ndaw ñe dal di fippu jàmmaarloog takk der ya yàqate oto ya waaye tam taalante ay lacrymogène yu jolli askan wa nekkoon ci njàqare gu méttee met ci jooju la jamono moom Ousmane Sonko ma nga woon ca Touba Mbacké fa la juma eh, ngir doon utali fa xam ne moom moo di ca Mbacké loolu nag am nay arrestation yu bare bari ay nit yoo xam ne am nañ ci ay gaañu gaañu ba ci ay policiers yoo xam ne sax am nañ ci ay gaañu gaañu ci noonu itam ñu gis ne coow la ak loo ko fa rek jot daal di andi bokk na ci takk der yi nga xam ne dañu doon bëgg a orienter xale yi li ngeen di jaar ak fii li ngeen di def ak yu tax nag ndaw ñi daal di fippu jàpp na rek lu jiig njaak président maki Sall mooy njaak teg ca ne seule la lutte libère noonu lañ ko daal di xamle ni ki démb ba Mbàkke fu waay sànni mbattu mu takk ba ci sax askan wàkk ña fa rek yeewoo lu ñeel wàllum nooy yi ay jafe-jafe woon ci ñoom rawatina ñi nga xam ne dañoo am feebaru euh, poumon euh, démb amoon nañu lu leen metti lool ba noppi yëkkati seen kàddu euh, jëmale ko ci ndaw ñi ngir rek ñu daal di ànd ak dal ndax lu ni mel démb tàngi amoon na ci ba ci sax ay bakkan yu rot yaakaaroon nañu ne que mën na faa rek daal di am bakkan rot fa waaye am na nit yu ci am ay gaañu gaañu ak ñoo xam ne yoon daal dina leen di teg loxo. Ousmane Sonko ginnaaw bu mu jugee ca Touba di utali ca Mbàkke moom itam jafe-jafe la amoon ngir duggi ca Mbàkke fu mu jaar rek takk der yi koj ko ne ko du fa mu mujjee wàcce ci yoonu suuf yi di bëtt ba noonu rek la daal di yeggee waaye sax ab jot nañ caa tiré bal boo xam ne verre ba dañu ko blindé xaw tuut mu daal di def jëye mu di oto ba nga xam ne ca la Sonko duggoon ba ci ñoom Guy Marius Sagna amoon nañu jafe-jafe ngir rek daal di yeggi afa nga xamante ne ni moom fa la ñu bëggoon dem mu di kër xalif de Baye Fall ci noonu rek la ñu daal di wiire foncé ba noppi jàmmarloog takk der yi ñoom itam ba daal di yegg kër xalif de bay fal ñu daal di leen di teeru ba noppi gunge leen Baye Fall yi yëkkati seen kàddu daal di ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Pastef ba noppi génn bobbeeku ànd ak ñoom ba sax takk der ya mën a luñ woon leen dara dañoo daal di siif ñëpp xool mbooloo mu moo xam ne daal dinay taxaw démb ci kanamu Ousmane Sonko mu mel ni ak quatre-vingt-dix-neuf pour cent moom Ousmane Sonko démb am na ndam ba noppi itam gën a am confiance ci mbooloo mi nga xam ne daal dinañu koy wuyu ni ki euh, démb euh, ca euh, Mbacké meeting Ousmane Sonko boobu jot naa jur ay dégâts collatéraux Walfu TV seen signal ba dañu ko rek daal di tëj li ko waral bokk na ci Sénégal gi nga xam ne moo leen jox avertissement ba noppi rek ne rap boobu la seen ndax ñoom dañu doon def live ca Mbacké doon wane yenn image wala sax yenn jafe-jafe yi nga xam ne mi ngi fa doon am ci guerre bu métte métti bu doxoon diggante takk der yi ak askan wa noonu ci jamono ji nga xam ne ci la ñuy defee live ci la ñu tëjee rek seenub seen ñu jàpp ne injustice daf caa rek dal di am li mu doon Ousmane Sonko di ab opposant moo tax rek ñuy wane yooyu lay image ñu tëj seenub télé bu doon ni que président Macky Sall la duñu ko mas rek daal di tëj injustice boobu nag taskat xibaar yu bari dal dinañu koy rek ñaawlu acharné wu ci kawam ginnaaw Sen TV gi xam ne ñoom tamit ñi ngi ci ay jafe-jafe yu yàggloo seen diggante ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di impôt et domaine ci wàllum fisc fi ne Walfu la ñu ne ràpp tëj ab signalam Cheikh Ahmed Cissé jooy na jooy yu méttee métti ni ki démb ca plateau ITV ginnaaw bu mu génnee jëlub dogal na nag bàyyi na Sénégal ak li nga xam ne moom moo di seeni nationalité jëlatul nationalité sénégalais waaye léegi ab Gambien la ba tax na sax mu jëlub dogal ne dafay yóbbu Fès Mame Matar imam bu ratib bu wokam ak euh, oustaz Mouhamed Mbaye euh, bu Sen TV ngir sant leen gërëm leen ci lu ñu ko defal ba tax tey euh, yoon jàpp ko tëjum kaso mu ko jàngal lu bare bari li tax démb nag mu daal di jooy jooy yoo xam ne euh, buzz la plateforme boo ubbi fekk ko fa moom moo di kaso gi nga xam ne ca la nekkoon ak la mu fa dund dem na ba rek daal di fase soxnaam ci biir kaso gi ci biir kaso gi ca la fête anniversaire am 36 ans waaye ci biir kaso gi fa rek defee anniversaire u décès yaayam ci deux ans yi mel ni mel la mu fa dund Doudou rawatina soxnaam si nga xam ne jot naa rek tàqalikoog moom ci biir kaso gi moo rek daal di metti ba mu jooy fa jooyu metti waaye tam injustice bu mu jàpp ne dañu koy def ci kawam ndax ba mu demee ci Kaolack bañ ko fa dóoree dóor yu metti plainte ba mu plaintoon ba léegi tey fourage daal di xëddeen ta ñu ko dóoroon toroxal ko ba noppi xotti ay yérem àdduna yëpp te ki seen bët ñi ngi ne jot nu di dund ci kaw suuf te ba tey ji yoon yëyu ci yàbbiw ci Fatou Mata Ndiaye Fouta Tampi la Diagne Diop maire bu Bambilor may ab xam ne rek ci ay mètre carré yu bare bari ndaw yi ca Bambilor nag nee ñu ko du fi amee du ñu la mës a bàyyi ngay tabax bi lépp terrain ndax mérito woo ko ki may suuf si moom ko ki la may suuf si 2018 ba léegi ay ndaw ñi ngi topp ci seen ginnaaw ngir mu jox leen seen suuf mu lànk ba kandaar war a jël suuf si di la ko may mu mel ni xupp nañu ko findu nañu ko ba noppi dal di joxe ay alerte ci bis bu fa Fatoumata Ndiaye xalaatee rek yëkkati ab mool bu booba am ca euh, Bambilor accident yi woy di am mu ngi mel ni tuleeg male ginnaaw accident bi am ca tooglu juróomi nit ñàkk ci seen bakkan ab camion bu daje ak euh, benn minicar ki saa si juróom ñàkk ci seen bakkan ci boobu la jamono sax découvrir nañ fa beneen néew boo xam ne bokkul woon ci accident ba waaye ca wàll ga la ñu ko fekk rek mu daal di sax commencé yàqu carrément ci ëllëg sa la ñu gisaat beneen accident boo xam ne ma nga amee ca ci gi coor oto militaire yi moo daal di këpp benn militaire ñàkk ci bakkanam fukk ak benn ci ñoom am tey gaañu gaañu yu métti métti ñu ngi dem bu itam beneen accident amaat na ñaari njaga njaay yu daje ci diggante Puyéen mu mel ni accident boobu nag dañu doon jéem a double ëppalante ba ñaari oto ya daal di daje benn chauffeur boobu mu génnee dafa daal di rek daw accident boobu itam ay doomu aadama ñàkk nañu ci seen bakkan ba ñu yóbbu leen ca l'hôpital bu Thiès ñu dal di addu wax ci mbirum people doomu yusuma jigéen bi di Vénice Ndour dafay rek marié wu ah, ki ko rek takk du kenn ku dul ah, Moussa Diop di ab opérateur économique moo ko daal di takk seen diggante nekk lu yàgg loo xam ne sax doon nañ ko ruumandaat ci suuf lu nu mel nag mujjee naa daal di antu ñu koy ñaanal heureux ménage Moussi et ah, madame Diop keneen ki nga xam ne dégg na alxayri mu di Ajara bu bu DTV ñu gën ko xam ci Ndéla bu wujju Pétergo Ndéla moomu nag daal dinañu koy. moom itam jël soxna ni ki démbul amal ab mariage am boo xam ne macha allah ñu koy ñaanal heureux ménage ndax te témoignage yëpp benn la ci yar ga ak tey ga waaye itam ci nit boo xam ne foo ko seen rek bañ ya ngay njëkk a seen. xibaar yi dañ ko jeexaleeg wàllum tàggat yaram ak lu ñeel l'international sénégalais bi di Sadio Mané évoqué na ab retouram ci lu yàggul dara rek daañ ko gisaat ci tañeer yi wala sax mu yor bal ba di bërëng ba ci diggante euh, bi nga xamante nañu ne ah, ci diggante Bayern ak Paris Saint-Germain moom Sadio Mané dana football lu ni mel mi xam ko xamle ajjuma bi ñu dëkkmal ci taskatu xibaar yi nga xam ne ñoom ñoo di ah, journaliste sénégalais yi ko tàllal seen micro wala sax amab entretien ak moom foofu la rek daal di xamle lu ni mel que fi ne mu ngi ci jàmm ak salaam tane na bu baax a baax ba dana dellu si rek ki biir ah, terrain bi mbokk yi xarit ñu doon teewlu ci suñu Actu TV ñu ngi leen di jaajëfal tey ñaan kendalu jàmm di leen jox dig daje ëllëg incha allah